Euh, ànd naa fépp ak suma ay tête de def nañ campagne biñu waron def lolu def nañ ko ñeneen ñi def nañ sen campagne mais ñun tamit suñu campagne waxtan nañu ko waa Tëngéej proposé nañ len suñu gis-gis ci Tëngéej bu bes biñu bëgg tabax pour domi Tëngéej yi gis-gis bobu mu ngi lalu rek ci expérience biñu am ci collectivité territoriale Tëngéej mais aussi ci suñu taxaway ci réew mi suñu expérience en tant que parlementaire yag xex pour indi

Mais, comme nous avons vu, le taux de participation est très important pour les présidentielles. C'est ce que La population est consciente de l'importance de l'élection locale. Nous avons dit qu'il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Le mode de scrutin est très important pour nous. Donc, les électeurs qui sont dans le bureau risquent d'être au moins 5 000 pour voter. Si nous avons une affluence, forcément, nous devons impacter ci heure de clôture du scrutin mais ce c'est pas un problème parce qu'à tout moment l'autorité administrative en l'occurrence le préfet m'a na arrêté pour proroger euh, le scrutin ba heure bi mu jàpp ne heure boobu dina baax fekk ñëpp exprimer vote donc ce c'est pas un problème particulier un jox na préfet jumtukaay pour mu jël décision yi mu war a urne yi moom li fiy jógee mooy expression population yi ba fi may waxee ngeen nii ci heure bi toll kenn signalé wu ma manquement majeur ci centre de vote bu mu mënti ci parce que depuis ce matin huit heures maa ngi en coordination avec euh, le directeur de campagne et nous avons fait des remontées donc bu ñu ma signalé Je jafe-jafe xaw ma lan moo tax suba ak si mais man suba ak si biir dama dynamique de victoire ku dans ci dynamique de victoire doo la contestation ñi nga xam ne dañu dans ci dynamique de défaite ñoo ñooy xalaat contestation waaye man que je waa Tëngéej ci fukki fan ak juróom yii yaakaar bi ñu wax ne moom la ñu am ci man ci sama parcours ci sama profil ak xam-xam ak taxawaay bi ma am ci au niveau national mais loolu boo ci nekkee da ngay ne dangay gàng lu rafet donc da ngay gàng ne man dama nar a am ndam parce que Tëngéej ñoo soxla Seydou Diouf nekk maire de leur ville que liste su PPC yi également am ndam dans les trois communes